mais presque ça soigne tout hein. Mhm. ah I'm telling you ça soigne tout les mauvaises haleines ça soigne presque tout ah. les plaies di ko naan di ko waaw di ko naan voilà complément alimentaire la. aussi pour les visages en plus c'est un produit boo xamante ne amul question préférence maanaam peau bi du ko utiliser peau bële du ko utiliser c'est un produit boo xamante ni ah. c'est pour tout type de peau. ok que ça soit sensible que ça soit. Euh, sec que ça soit acnéique que ça soit peau grasse yëpp mën nañ ko utiliser sa s'adapte à tout type de peau. Hmm. voilà ya a un mélange facial aussi boo xamante ni mën nga boole masque bi d'accord mën nga boole euh, aloe vera gel bi soit avec du citron soit avec du miel hmm. ok voilà tu te tu te mets à minutes sur le visage day dindi taches brunes yi nga xamante ni c'est persistant hmm. bouton peau grasse ça enlève tout tout tout en plus c'est c'est agréable c'est relaxant ça hydrate la peau aussi ah, okay. voilà ça ça joue très bien sur le sur le sur l'épiderme mm -hmm. surtout avec euh, période bi ñu nekk nii nga xamante ni dafay yomb pour yaram di craquelé wu effectivement voilà maanaam yaram yiy xar waaw yaram yiy xar wala didim yomb waaw voilà wala didim si tànk aussi <laughs> euh, c'est très très très euh, c'est très très kii mën nga ko utiliser daal pour karaw aussi mën nga ko utiliser. comme la photo day yokk karaw. ah ah day dindi crasse. si day yokk karaw day dindi crasse. tu sais presque produit de beauté yu bëri presque 90 pour cent de produits de beauté ñoom dañuy vanté wu di naan ah. am na aloe vera. parce que xam nañ efficacité aloe vera. Okay. oui tu l'utilises sur gis nga bii dafa extraire gel bi boole si waale kii bi euh, enveloppe bi mm-hmm. ce qui a fait que le truc est vert. maanaam dindiwul daggul dara. daggul dara dafa kiiwal yëpp dafa wal yëpp. mu nekk liquide tu vois dafa wal yëpp mu nekk liquide mu koy appliquer ci boppam euh, dix quinze jours un mois ça dépend juste des types de personne pour euh, pousse des cheveux am na boo xamante ni aussi c'est à base de citron si tu peux pas utiliser l'aloe vera et le miel tu l'utilises avec le citron maanaam l'aloe vera et le citron lu muy def c'est pour c'est un masque de visage maanaam masque boobu lu muy dindi ay xamak ay piccax yooyu waaw euh, élastique xam nga yaram. waaw dafa am euh, coco dafa am collagène. waaw euh, aloe vera dafay booster pour reproduction collagène bi nekk ci yaram. Ah, voilà c'est ce qui fait que y a beaucoup de peaux yoo xamante ni dafay yomb pour ñu am picc wala dafay yomb mhm. pour ñu am euh, euh, mhm. craquement craquement mhm. dafay yomb aussi pour maanaam yaram muy toog ba mu yàgg rek mu ne tef fet voilà euh, élasticité élasticité bi lay mooy collagène loolu lay collagène bi voilà lii nii c'est très très bon aloe vera bi pour pour loolu di ko diw sa kanam di ko diwoo paraît même que c'était le secret de beauté de Cléopâtre ah. Cléopâtre moom moom moom Égypte. moom mu <laughs> Égypte <laughs> Fall fa nga nu yóbbu sori na. son secret yóbbu nga nu dans dans l'histoire dans l'histoire dans les hiéroglyphes lan mu lan laal lii. <laughs> histoire lointaine. on a on est parti toucher la première civilisation dans le monde ah. waaw c'est super. c'était son son secret. mais Cléopâtre j'avais entendu dire qu'aussi elle faisait traire de du du du lait d'ânesse. d'ânesse oui ah mu meewu mbaam. mu fees dellu ci baignoire mu sangoo. ma ne loolu day doole ah loolu c'est elle moom tout ce qui touche à la beauté. à la beauté voilà tout ce qui touche au xam nga jamono boobu noonu euh, yi ñu am nii ñoom amuñu ko woon ñoom tout ce qui est naturel tout ce qui est loo xamante ni day sax tout ce qui est euh, tout ce qui n'est pas industrialisé ñoom dañ ko doon utiliser genre pour pour ci question de beauté. Mm. surtout Cléopâtre moom. Mm. comme li ngay wax ni xam nga ratt meewu. meewu mbaam ak mbaam ni mu jëfee am. ak ni waaw ak ni voilà ah c'est vraiment quelque chose mu bëgg rek. wallaay mhm. dag ya dag ya dag ya dag ji li jëm ci. mais Khadija indi nga lu am solo parce que man expérience laay waxee ah très sincèrement benn jour dama doon football. Mhm. am benn euh, juróom. Mhm. xam loolu xam nga gars yi. football juróom gars dañ ma tonni quoi parce que man <laughs> excentré la latéral bu soxor laa dajal ma tonni ma. ma xoosu am juróom bu nice. dama dikk gars defal ma aloe vera. may ma aloe vera takk mm-hmm. noonu ci garab bi noonu xoos ko noonu rek jox ma ma taf ko ci bi ma xëyee suba gi dafa woo ko. Mm-hmm, noonu lay def même pour brûlure piqûre de moustique. Ah, wala dara boo ko si appliqué déjà day wàññi douleur bi. Mm-hmm. en plus dina permettre que po bi régénérer waat maanaam dellu na mu meloon. waa Mariste déglu leen. voilà. maanaam bu fekkee ah. yoo dañ leen di mat de <laughs> parce que ñoom saa yu ma fa demee ñu ne ma waa Kaolack dañu am yoo mais ñoom maa waa Maris ah, dañuy fàtte ñoom dañu am yoo ñoom tam ah <laughs> aussi un conseil euh, di Sidi uh-huh. boo ko daggee def ko sa réfrigérateur mën nga ko conserver jusqu'à deux semaines maximum sinon bienfait yi si nekk dafay dee après deux semaines ah. bu xasee ba dog deux mm-hmm. semaines nga am. deux semaines nga am ah, boo ko xasee ba dindi waaw voilà si plante bi mm-hmm. deux semaines nga am. waaw mais kon pourquoi qu'est-ce qui explique mm-hmm. que des fois nga dem si pharmacie mu leer la ne médicament bi defaree wuñ ko fii te nee nañ la gel d'aloe vera la. te mën naa def ay ñu ne la date de péremption bi 2022 la. parce que c'est là-bas on met des produits. parce que lu jàll ci usine dinañ ko saytu xëy na xool lañ lañ ci mën a def pour conservation bi ah. mën a yàgg voilà par rapport ak loo dagg si si garabam voilà mi ngi mel ni banaan mhm. man parfois dama naan euh, ñuy jaay banaan yi nii fruits yi nan la ñuy def ba seen banaan yi mhm. ñu koy teg fii presque une semaine te du du jaune du kii du no du ñuul du du kii daal du nooy par rapport ak man bu ma ko jëndee def ko sama frigo hmm. trois jour deux jour quatre jour nga gis mu commencé yàqu tu vois. Hmm. peut ñoom ils un secret boo xamante ni hmm. dina gën a mën a. conserver voilà conserver produit bi. ba nga xamante ni. loolu maa lay jox astuce boobu. Hmm. yaay joxe astuce. gis na banaana am na benn euh, affaire buy nekk si kaw tige bi. waaw waaw boo ko boo ko boo ko séparé ak euh, euh, air bi. Ah quand tu le sépares cette partie avec l'air dafay créer lu ñuy wax in dafay intact. c'est-à-dire boo fekkee jën ah. boo bañee mu yàq da nga def xorom parce que dafa am lu muy dégager xaw ma mm-hmm. nan la ñuy tudd moom la ñu defaree yenn cube yu bëri yi mooy les bouillons là mm-hmm. mooy li tax keccax bi di ñëw di saf xorom te du amul kii nii voilà mm-hmm. genre yooyu noonu léegi nag bu fekkee banaan la dangay jël fii am tige bi noonu da fay laxas papier aluminium wala papier film léegi éviter ko mu am contact ak ah. air bi si bu fekkee ne banaana bi dafa doon def 10 jours pour yàqu mën na fa def 20 jours te du yàqu. Ah. loolu sama tactique la daal. <laughs> xel moom li ñu naan xel du doy. je te jure la samay tactique la faal loolu samay tactique la loolu mooy ah. gérer ay banaana yooyu non non non damay gérer yooyu. Ah, mais gel d'aloe vera quand même. Euh, mm-hmm. y a beaucoup de y a beaucoup de mais mm-hmm. li ci li ci nit ñi li ci nit ñi mën a jëriñu bari nañ mën nañ ko naan. Mm-hmm. mën nañ ko diwoo. mën nañ ko fajoo mhm. mën nañ ko def ci bopp mën nañ ko def ci yaram mën nañ ko def ci gémmi tànk yu xar mhm. nga def ko si trempé si sa tànk rek voilà surtout ak kii bi di ñëw seddaay bi di ñëw mës naa gis benn vidéo d'une dame qui avait des vergetures ay rew foofu laa jëm mhm. c'est très très efficace pour les vergetures maanaam ñi am rew ñi am rew nga ko si appliquer si partie bi mu nekk def ko routine quotidienne au fur et à mesure dafay estomper réew maanaam koy dafay mel ni. da koy ah, refermer voilà merci ah, beaucoup. c'est très recommandé ah, pour les vergetures le gel d'aloe vera. parce que day day tëgg pour ñi door am doom wala ñi en ñi ne les femmes enceintes oui les femmes enceintes mën nañ koy appliquer si seen partie yu am réew parce que si moment yooyu noonu ngay am ngay aptu tout le temps parce que xam nga réew déchirure la mhm. déchirure de la mhm. bi mooy jilatew waa ah bon oui ah, c'est la peau qui qui se euh, délie. Ah. da nga ëmb. xam nga say am benn forme bu bees. ah c'est pour ça waaw boo commencé grossir nga gis day def ay merci day xaar. léegi nag loolu pour éviter ko mën nga ci appliquer gel d'aloe vera. Ah, léegi collagène bi dafay mm-hmm. permettre mu recoller waat mën a gérer waat euh, mm-hmm. yëf yi. non mais euh, am na beneen affaire aussi defe naa ñi mus a def césarienne. Mm-hmm. buñ ñu def dafay am ay point de suture. buñ leen xottee ba pare. après cicatrisation boobu muy bàyyi di si appliquer gel d'aloe vera. moi je suis l'exemple parce que c'est ça qui a vraiment cicatrisé euh, sama césarienne. macha allah gel d'aloe vera bi bi. bi pas pas pharmaceutique pas pas. mooy bi ñu saxal garab bi ñu saxal garab bi. dañuy def mm. routine quotidienne voilà à la longue même tu ne vois même plus euh, le trait d'opération c'est c'est efficace. Buntu Saint-Lazare. Mm-hmm. wala buntu Mariama Niass. Mhm. wala rond point euh, euh, nu mu booru Kaas ba. Mhm. wala foofu noonu ñi ngay gis ñu jaay fleur foofu. boo leen laajee aloe vera am na ko nga jënd ko rek sànni ko sa kër. Ah, ah, c'est recommandé nga koy nga koy saxal sa kër. Ah, c'est bon pour mhm. l'environnement. c'est bon pour l'oxygène. que ça te donne, c'est bon ah pour les premiers soins. automatiquement, automatiquement ça beaucoup de monde. beaucoup de grand-père boo xamante ni mm. daf koy dagg daf koy xolli. Mm-hmm. dagg ko quatre tranches ko si bouteille bi muy naanee moom. mais voilà il c'est un vieux vraiment sain je le salue au passage. Mm-hmm. c'est un vieux vraiment sain boo xamante ni bon machalla allah je touche du bois. Mm-hmm. Euh, lu koy sonal te mag la. li koy sonal bëriwul si question santé om mm-hmm. mais loolu moom dama ko seetlu si moom ça fait des années euh, ndoxam day dagg ci day dagg tout le temps ah. aloe vera bi tëmbal ko si day dindi partie vert bi ah. euh, tëmbal ko si def ko ndoxam mm-hmm. ça ça prévient sa rend la police <laughs> bëri na daal man daal je l'appelle un ah, am ay ay problème de digestion am na ay ay ay ay ay sociétés yoo xam ne aloe vera rek la ñuy jaay mm-hmm. mais pulpe d'aloe vera bi dañuy dem ba mun ko jaay cinquante mille Ah bouteille bu ndaw ah te pulpe d'aloe vera mooy jus bi noonu jus bi maa ah ngi plafonné xaar ma wàccaat mm. parce que man maa def lu lu may plafonné mm. mais pulpe bi noonu nga koy naan mm-hmm. c'est bon ça régule euh, les les, les tensions mm. dafa baax ko aloe vera c'est c'est miraculeux c'est miraculeux merci beaucoup def yooyu li <laughs> ngay def nii baax na ba maam Balla Mbow miy wër ne Allemagne la nekk du dëgg mu ngi fii buun <laughs> Pape Omar nee na daf laa nopp yéen ñaar da ngeen di génn chaque jour tu dois venir nanani nanana Ibrahima Diallo merci beaucoup <laughs> Yayoush Kénémé Sky Pape <laughs> nee na man dama am xam-xam aw ma xam-xam de dama sob rek damay wër di lijjanti ay yeneen affaires yu bokkul ci affaires yi mais en tout cas c'est ça good morning mm-hmm. on ne veut pas vraiment nous concentrer juste à nous amuser Mhm. en euh, nous amusant aussi on parvient à donner euh, des informations peut-être utiles mhm. euh, à une ou deux personnes dans le Sénégal et je pense que mhm. ça c'est la meilleure méthode nous allons recevoir dans quelques instants Tchouk et son invité mais je vous dis au revoir les gars tonton mais que vous reveniez sur les images pour expliquer quand même sur le gisement Yaakaar gisement Yaakaar ñu dem kon gisement Yaakaar très rapidement parce que le temps nous a vraiment bloqué coincé heureusement ba tey kii ñëwul comme ça coxu mën a tàlla laale laale. waaw ayca <laughs> jugement yaakaar moo nekk noonu. voilà mhm. yaakaar moo nekk nii voilà. ayca noonu ñu dellu si waat ci euh, waaw ayca mu ngi nii grand jugement yaakaar bi loo si bëggoon voilà yaakaar bi. Mhm. jugement la boo xam 2017 lañ ko découvrir. 2017 mhm. la mu renfermer 420 milliards de mètres cubes de gaz. boo xam ne partie Sénégal rek la bokk. 420 milliards. de mètres cubes de gaz. subxan ay waay waay. waay waay yàlla ñëw na waay Sénégal partagé ko ak kenn. yàlla géeju Sénégal la yàlla yóbbantewul naaj ñëw Sénégal la nekk. billaahi yàlla yàlla yàlla ñëw na. <laughs> nga ni waxaatal chiffre bi. 420 milliards de mètres cubes de gaz 420 milliards de mètres xamoon naa ni dinaa am lii de ci ko fee xaar nag. billaay ah dañ ko fee xaar moom dañ ko fee amul président amul dara ñun ñoo ko bokk. ñoo ko bokk voilà ñoo ko bokk suñu alal la il faut c'est bon à milliards. de mètres cubes de gaz de boo xam ne partagé ko ak Mauritanie ñun ñoo ko moomal suñu bopp. yàlla ñëw na. waaw waay waay waay waay suñ coono bi. <laughs> à 95 kilomètres de au large de Dakar. Allahu akbar. c'est à 95 kilomètres de Dakar. la nekk. quatre-vingt quinze kilomètres au large de Dakar waaw soriwul loolu da nga koy fay sax man dama koy prolongé. soriwul barki soriwul. <laughs> Allahu akbar yàlla ñëw na de maam. nanu muñ rek. <laughs> Allahu akbar grand. yow del ñëw di ñu wax yii. nga ni ñaata. di ñu may espoir 420 milliards de mètres cubes. Allahu akbar. en tonne ça fait 420 milliards de mètres cubes. en tonne ça fait 310 millions 800 mille tonnes. waaw te lii benn la ci gisement yi. benn la ci gisement yi bokkul ci yeneen gisement yi. déedéet bokkul lii rek dañ koy jaay rek teg voilà lii rek dañuy teg. kii dama koy yóbbu Colobane teg. waay waay waay mooy yaakaar un. <laughs> bi mooy yaakaar un. yàlla ñëw na découvert en 2017. mais grand merci beaucoup yow moom fi mu ne nii moom mën ngaa bañ a dem Màkka sax wala ngay julli boo jullee tey takkusaan wala tisbaar di nga ma tooñ de grand dama lay ñaanal de. waaw baax na. <laughs> mais merci beaucoup quand même. rendez-vous incha allah beneen euh, alxames. merci maa ngi sant bu baax di la gërëm. j'aimerais dire merci à quelqu'un bon maa ngi remercier madame. Mm. les enfants. Mm. Fatou Awa Mohamed. tellement professionnel grand Nafi mu remercier ay ay gars <laughs> <coughs> mais merci beaucoup. waa Italie Antonella. Mm-hmm. <laughs> Antonella mm-hmm. Antonella. oui Cathy waa Italie tout le monde. wallahi kontaan naa de gars yi nee nañ Pape Sidi kontaan nga de <laughs> yàlla ñëw na barke rasulilahi lii dañ fee sonn nag réew mi dañ fee sonn <laughs> Aïcha Khadija waaw euh, man maa ngi di remercier yéen ma bokkaloon plateau mhm. di def que encore à maman Patra di ko wax bonne guérison mhm. am seeg Patra euh, sama maam waaye elle était un peu souffrant dafa jóge waaw xam nga dafa jëm mag te nanguwu ko. non non dafa jóge fa lay nekk am am am am am fu mu war a def aloe vera na fi na sama roko bi. <laughs> di la ko ne waaye mi ngi noonu di di leen remercier euh, di def un coucou à madame Koité euh, doom yaay Acha. Mhm. Acha Magu Khadija borom Dija Mera Glam Up voilà madame Koité di la wax ni que. le peuple est content. Yeah, le peuple est vraiment voilà. content surtout le, en ce moment là. <laughs> en peuple est vraiment, content <laughs> on a de l'aloe pour nous soigner on a du gaz pour avoir de l'argent bientôt de l'iris. <laughs> le peuple est content le peuple va être encore plus content si c'est on donne la parole à Thiouk et son invité aujourd'hui dafa am benn gayan boo ne Diop Fall la tudd. Mm-hmm. mais numéro 2 moom la Thiouk invité. Mm-hmm. on va rire c'est assuré dans la deuxième partie après une courte pause. Je vous retrouve avec Tchouk et son invité Diop Fall numéro À tout à l'heure.